Abdou Karim Gueye xurum xaq ginnaaw bi mu génnee démb <laughs> def na ab vidéo ñu dem rési te dellu siwaat salaamaaleykum tout le monde maa ngi maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp bëggoon def benn benn explication bu gaaw rek seen fenn Abdou Karim Gueye la activiste membre du mouvement Nittu Dëgg alors li jiitu d' abord mooy man damay nuyu ñëpp quoi di jégalu ñëpp parce que olof day wax fa yow yegg du man eggu fa te instant yi gaar yi nekk ci guerre guerre médiatique communication boo xam ni dañuy dénigré waate di yàq wax yoo xam ni dara leeru si man dama bëggoon rek pour expliquer mu ñu comprendre carrément li tax man ma refusé na man du ma signer ay sous contrôle judiciaire parce que damaa gëm ni man gisuma sa raison d'être bu ñu waxantee dëgg rek parce que ñun bu dee liberté provisoire la suñu avocat dugaloon nañ ko di xaar 15 jours ñu toog di xaar waxuñ si ñu téye ko affaire bi dem ba un mois ñoom ñu rejeté ko teguñu ko fenn ñu xëy à ma grande surprise ñu ne ay artistes ñoo dugg palais dem ñaan fa comme ni ñu koy waxee justice bu war a bu indépendante justice bu ñuy wax ci république benn nit mooy toog ñu koy ñaan muy maye ñuy bàyyi kii wala ñuy téye kee mu toog ci palais bi naan dugal leen ma pousse ko ñu bàyyi kii wala ñu jàpp kii wala ñu bàyyi kee parce que loolu la xeex donc quand quand président se joue de la justice ñu dañu war a taxaw ne ko déedéet te loolu bokk na si li koy wane quoi beneen bi mooy euh, man samay frère Bayna Gueye ak Ousmane Sarr ñu ngi ci kaso nekk samay frère yoo xamante ni man defuñu dara lu dul taxaw rek. ne libéré Pape Alé Niang libéré Karim Xurum Xaax libéré Cheikh Oumar Diagne juste libere ñu jël leen tëj leen ci kaso bi defere leen ñu defere leen yóbbu leen parquet defere leen tëj leen ci kaso bi xaw ma seen soor man duñ ma gën a gore man man nekk man ma génn bàyyi leen ci kaso bi te ñu ma doon xeexal ma ñëw taxaw di signer ay liberté provisoire di génn di di dox ci dëkk bi nice ay nit di xeex di xeex di ma xeexal ma dem mel ni comme si de rien n'était man loolu du bëgg mu indépendante mu indépendante dañ koy xeex te xeex du ay wax rek ni ñu koy jëfee mooy il faut sénégalais bu nekk comprendre naka nga war a xeexee ñu fexe ba justice bi indépendante pouvoir judiciaire nekk fi pouvoir exécutif taxawee ne pouvoir législatif taxawee ne ku nekk am sa dooley bopp loolu mooy état de droit loolu mooy république te loolu moo tax man sous contrôle judiciaire seeri <laughs> taaw jaa ngeen jëf mbokk yi ci commentaire yi des ñu participer lu am am solo comme ni ngeen participer cinquante cinquante gi dinañ ko noté seeri taaw bu la Karim jàppee di am problème nee na est Karim suur ngeen paa yi nekkuñu woon di xeex bi ñu koy tudd ndax nee dafa bëgg xeex daal moom day génn ci kaso bi tey génnaat taxaw ci buntu police bi nga dégg ko micro mu ni dañuy xeex mm-hmm. waaw le Sénégal ki gañ euh, dégg wax waaw kon léegi yow waaw. mu waaw man de li ma jàpp te wax ko mooy. Hmm. moog Cheikh Omar Diagne dañ leen a bàyyi ñu ñibbi. man laa wax li ma wax man dafa wax. mais man li ma gis te xam ko laa wax mais ki ñu téewoon moo wax. sooy man dama xam yoon. yow mi dama xam yoon xam ni yoon di doxe ah waaw nëbb nga ma sa bopp. waaw noonu la. mais ñoom mook Cheikh Omar Diagne dañ moom moom mi demoon day mbir waaw noonu moo tax mu génn wax ko bu ko defee ñoon oh nangam nangam mais dañ koo libéré mook Cheikh Omar Diagne dañ leen a bàyyi waaw dañ leen a bàyyi kay wax ñu dem ñibbi waaw dañ leen a mais ba téewuñ leen ni leen mayutuñ leen ngeen wax si lii mayutuñ leen ngeen wax si léegi kenn defulee leen ko kii nga xam ne mooy Pape Alé Niang moo ko am te d'accord na si ñeen lan moo tax ñu ne day dem wuy ah, yàlla seede na ni moom mii di kii kenn néewu ko si ñeen mu lànk ñu bàyyi ko mu yem kenn defu ko loolu amul defee naa ñëpp. dem eh. Sénégal defee naa leen kaso kenn du fa génn ñun la lii ngay signé génn nga ne signé wu ma ñu bàyyi la nga génn loolu moom wérul. kon li mu wax ne kon la ci jublu li mu wax nii nag il faut mu wax ay waxam la d'accord nañ ci ak moom ndax nit it bu toogee di wax dañ naan la li ngay wax d'accord nañ ci beneen beneen beet Omar Sarr ñoom kii euh, rakkam jooju di Ousmane Sarr ñoom. ñooñu nga xam ne téye nañ leen si guddi ga mooy ñi ma am waaye woon noonu ñu fitnaal leen leen sonal leen toog si seen kaw loolu Sénégal gépp dañ koy naqar ñu jàppaat leen waa ñoom it maa ngi leen di conseil réew mi dafa am nu muy doxee gis nga bu jant bi xiseetee so lépp lu jëm si ay doxu ñax ki yëngal jëlal nga teg ne soo xëyee nga sangu ba set woo ñi nga war a woo nga taxaw fenn def conférence de presse wala nga yëngal bëccëg mais guddi gi boo génnee di dox ñax libéré nangam libéré nàngam si guddi geet day xaw a doy waar. ok yéene leen ko te it ñaanalul leen ko. kon nag réew mi ni ñu war a doxee mooy son bu raay jub ñun ñëpp ñu laabirante. Hmm. si dëgg. d'accord voilà. Alaaji euh, noo déggee Karim li mu wax euh, nee na de du nangu yenn yi te ay naataangoom ñu jàpp leen ndax moom. Hmm. kon du ne ci biir di gundaandaata ka nooyal bàyyi leen ci biir. waaw Karim de. d' abord ñu ngi koy nuyu. Mm. di ko ñaanal jàmm. Mm. waaw di kontaan bu baax ci déggaat ko parce que gën nañ koo dégg mu yëkkati ay kàddu euh, li nga xam ni moom la wax nag. Mm. Euh, Karim moom euh, lu waay mën a wax xam ni ngëm-ngëm am na ko. Mm-hmm. li mu nekk lu mu gëm la. lu mu gëm la li ma maaka nag parensaay mën ngeen a bañ a bokk gis-gis. Mm-hmm. mais nit la koo xamante ni kii ay ngëm-ngëmam. moom lay demee. waaw donc nag euh, day montré waat rek ne Karim am na lu mu wax nag lu am solo. muy muy ci lu jëm ci wàllu parce que dafa ñaawlu ni ñu ko ñaanalee. Mhm. dem pale di ñaan. muy mhm. rappeurs yi demoon di ko ñaanal parce que moom loolu lay xeex. Mhm. buggul justice buy doxee noonu. justice boo xamante bi day dox kenn mooy nekk fële. maanaam ku mu tëj mooy seet ku ko neex mu tëj ku ko neex mu bàyyi loolu. Euh, mooy li nga xamante ni bii. moom la avocat mi ñaanal nañ. un mois ci ginnaaw ñu. waaw hmm. waaw léegi rapport yi ñaan président Macky Sall. appuyé loolu hmm. loolu bokk na ci loo xamante ni bii tamit lu mu parce que daf li muy xeex mooy justice bi nekk justice bu indépendant. nga hmm. xamante ni bii kat dinañ ne kat ku ñu tëj. kenn du xalaat sax ay président. mais dañ ñaan kat yoon mooy li nga xam ni moo la tëj. parce que da def lii ak lii ak lii ak lii. waaye eh, lii nga xamante ni bii moom lay euh, kaas place bon donc vraiment man nekk na loo xamante ni bi euh, mbir mu jaaroon parce que ñun ñëpp loolu lañ bëgg justice bi di dox comme li nga xam ne noonu la war a doxee tegu ci siraatal musaaqib loolu mooy li nga xamante ni bi vraiment ca loolu mooy li muy xeex waaw loolu nag wax la joo xamante ni bi wax ju am solo la waaw te daal Karim daal mooy Karim mooy <laughs> gars yi li ñu wax noonu daal de Karim moom xam boo ko génnee it fii lay génn daal di xeex xam nga Karim moom fekk li nga xamante ne bi moom lay ñaxtu mi ngi ci biir dëkk bi mm. même bu doon moom kese xam nga Karim xeexu Karim li tax mu doy waar mm. Karim xaarut nit ñi waaw maanaam day xeex xeex boo xam ne moom dong mooy jóg dem mm. waaw xaarut nit ñi yaa ngi dégg moo tax ba da nga naan manifestation Karim ki mais day def bruit. Mm-hmm. manifestation day def bruit. Mm-hmm. waaw moom xaar gars yi di jékki-jékki. di def léegi léegi ni waa ji waxee noo gisee nee na Karim si ñëw dara. waa xam nga waa ji moom. Euh, waa ji moom. ay waxam fi mu toll nii. Euh, ay waxam la moom dafa peut dafa am loo xamante ni bi jàpp na ne xam na ko. waaye peut-être tamit mu am leneen loo xamante ni bi mën na koo bañ a xam comprendre nga. xam nga tey maanaam yoon duñ la signal bañ. xam nga tey non xam nga moom loolu. Hmm. xam nga moom Assane dafa am lu mu maîtriser wul xam nga loolu bu dee yoon wi ni mu war a doxee noonu lay doxee. Hmm. loolu mën na ne mais beneen saa yi bu ñu nee la bàyyil booy bi. booy nga ne waa léegi da ngay signé booy bi ne si ñëwu ma li nga ba booy bi. waaw mais am na Assane loolu la du xam. waaw réew day doxee ci bàyyi booy mu des nag mu des nag léegi alaaji nga koy ko. waaw léegi suba na nga ñëwaat sax. voilà <laughs> waaw suba na nga ñëwaat waaw li nga li nga xam ki ne la bàyyi booy bi ba booy bi. <laughs> waaw loolu nag la Assane Parensaay loolu mooy nekk euh, ay problème am. Euh. moom dafa teg mbir yi rek de. yépp dafa tegu ci seraatal mustaqim. waaw waaw te fekk bàyyi booy bi moom faa woo léeg-léeg booy bi day am. Hmm. voilà bàyyi booy mooy raay dëng yi waaw fekk booy bi moom doo xam ni ah. dañ ñu ko bàyyil booy bi mais nag. <laughs> waaw signature bi nga ne ko eh ah, suba na nga ñëwaat. waaw ah, booy boobu yëgut ni dañ de bàyyil booy bi. waaw moo tax booy bi moom lu ko neex waxee. Hmm. voilà dëgg la